maa yaay Abdou Razak ah wax dëgg yàlla xaw ma nu mu amee man daa am ku mu ñëw fii rek ma ne ma dañaa agressé doom palaasu Malick bi ñu ma ko waxee nag ma daw dem bi ma demee ba si yoon bi sama beneen doom bi woo ma ne woo nañ ko ne dem nañ yóbbu nañ ko hôpital Kër Massar ma daal di jël cinquante bi dem hôpital Kër Massar heure rek la heure yi rek dañ julli timis ba pare parce que bi xabaar bi ñëwee fekk papa mu ngi julli gee ma papaam ñëw sa dama daw rek dem ma ñëw ba si bunt bi gardien bi ne du ma dugg ma ne lu tax du ma dugg mu ne gis nga ñële yëpp ay policier lañu ma ne waaw sama doom lañu agressé bàyyil ma dugg al xale bu góor bi ne bàyyi ko mu dugg mu ubbil ma bunt bi ma dugg ma ñëw da fekk xale yi euh, policier yëpp wër oto bi ma ne waaw yéen ki ñu agressé anamu ñu ne mu ngi nii ci oto bi ma ne kii kay daa ñu ne yaay dalal rek deewul ma ne ko bu nekkente ne agressé la ñu yëndi day day mu ci biir docteur seet ko di ko faj wante du nekk ci oto bi ah léegi nag ñu ne xaaral rek xaaral ñu xaar loo ma ma ne eh man ma gum jéem a laate gëm naa yàlla xam naa ne yàlla moo ma ko joxoon bu ko yàlla jëlee itam ba xam ne yàlla moo ko bu yàlla bu ko soobee mu jël ma wala mu jël kenn si kon nag bàyyi leen rek ngeen wax ma léegi nag beneen xale bu góor bi ne yaay yow de gëm nga yàlla wante xabaar bu tiis la de eh, eh, génn na àddina ma ne ko alhamdulilah yàlla lii la soob lii moo neex yàlla léegi ma woo papam bi ma woowee papam papam nee na waa police Mali ko woo nañ ko wante moom dafa jóg bay dem mu daanu mutation ñu yóbbu ko si biir di ko ëpp di ko sotti ndox mënul ñëw léegi nag ñu ne comme yaayam ñëw na nañ ko yóbbu morgue man ma topp oti ba ba mu yóbbu morgue ma ne dama koo bëgg a gis ñu ne déedéet dañuy def autopsie ba pare nga soog koo gis toogal rek xaar rek boobu yëpp man maa ngi tudd yàlla rek man jooyuma saalituma defuma dara nga xam ne yàlla mbirum yàlla la boo nekkee foofu di saalitam yàlla def na lu muy def kenn mënu ci dara wante ñi ko def yàlla na leen yàlla nit te police bi yow gendarme yi yëpp dañoo war a fexe ba ñu gis ñi koy def caacaay di jëf jëf ji ñaaw ji yàlla na leen yàlla toraxal te nguur gi war na cee jóg deful peine de mort bu population bi dañuy def saa yu ñu reyee nit ñu daal di dajaloo ñuy rey ku reyoon rek ndaxte lii daa métti lool moom am na ñaari doom bu góor ak bu jigéen léegi mu dem nii ci ser bu ñu jàppee xale yi tëj leen ñaari fan ñetti génne leen metti na metti na fu metti yam bi ma jógee hôpital ñëw dëkk bi yëpp fii lañ nekkoon du joolaa bi du séeréer bi du haalpulaar yëpp fii lañ nekkoon si biir kër gi góor ak jigéen metti lool metti ma lool métti ñëpp moom dafa nekk ci benn groupement ay Croix-Rouge di dajale xale yi di jàngale wala bu ñu amee ay yére ay yooyu di leen jox di dajale taalibe yi di leen jox ay yére walla ay ñam boole ko di photographe la day photo di def ay caméra bu nekkente ne am na kuy céetalal la kuy ngénte bu ko woowee mu ñëw mu defaral ko man daal loolu mooy liggéeyam waaw

ah waaw bu ci nguur gi jógulee day mujjee ñu fayal fajal seen bopp kay ah ndaxte toujours rey toujours rey dañuy mujje suñu jàppee ku rek ñu am population bi yëpp dajaloo rey ko ba moom tam lool rek la ñu mujje def de bu ci nguur gi jógulee foofu rek lay mujje de meti metti metti metti metti loolu moom ñëpp la metti metti nag ñépp góor yoo jigéen yoo ñëpp la metti ndaxte dafa metti ah loolu de metti na loolu moom ku yàlla na tolloolu rek xam na ne moom metti na torop torop torop torop metti na wax dëgg yàlla fu metti yem metti na metti na de hmm.